loxo wax waxal baatub laa ilaha illa wala ma ko raya. tax ñii wax ne jullit ñi dañuy reyaate dañuy wax la wax xamuñu lan islam dañ koo islam du fital islam du paka islam du wax ju bon du wax ju nakare, lol du islam mu wax dafa daanu mabba jaxaw sëñ cheikh moussa si sëñ sëñ dafa daanu la mabba mu ne ko ni mu wax ko bur xam si dama laa seet si bëgguñu waxtaan li nga yor baax na baat bi nga yor li nga def baax na mu ne buur dafa am bopp mu ne buur dafa am bopp yàlla moo leen may bopp soo waxee ak ñoom ci xam-xam ñu dégg la waaye tamit macha allah Fatou Laobé dafa am dégg Fatou Laobé dafa am dégg Fatou Laobé dafa am yàlla mooy fal kilifa ñii c'est pas n'importe comment àdduna bi yëpp xam leen. li mu yëg ba di ko wax def koo taataan dégg ko waxantuwul waxantuwul lu ñu neex li mu wax ci xol bi lay jege ma ne faatu géwél dafa am daa ngeen jëf kon su ko defee jërë ngeen jëf gàmm gi moom tubaarkàlla kontaan nañ waaye li ñu bëggoon a eggali rek mooy li soxna Fatou Lawbe doon wax maanaam faatu Guéwél faatu Lawbe day gën a saf rek su ko defee li ma doon wax ci suñu yonent salaay salaam gis ngeen diine diine du làmbatu yonent ala Ibrahima tëbul am diine dafay xëy su gisee weer wi na weer waa ngi nii weer wi dem mu gis jant bi na yàllaa ngi nii jant bi dugg biddéew yi génn mu ne yàllaa ngi nii da koy doon wër may may leen ñu tuuti may leen ñu tuuti ñu tuuti rek yàlla nekkul loo xam ne dangay ngay rek li ko gars yi bëgg a def lu juróom yi ñu tënk ko dafa yomba yomba yomba yomba yomb nit ñi jëfandikoo woon seen xel bu ñu jëfandikoo sax toog xalaat bu baax xam ne loolu terewul xol yaa ngi ngi koy def ñu ngi julli ñu ngi woor mais xol yaa ngi tilim mais lan la lu xew ah lu xew te defu ñu ittee dañu ko dañu defu ñu ittee ittee lañu defut ittee moo tax gis nga nit dafay def dafay posé wu question yonent yàlla Muhammad gis nga bi mu demee ci xuntu ba ba Jibril feeñu ko bi mu ñëwee ci soxna Xadijatu moo tax soxna yi xool leen soxna Xadija ni mu toll bi mu ñëwee wax ko ko dana ko gis naa mu ne ko loo gis mu ne ko nu mel mu koy expliquer ni mel mu ne ko xaaral mu ne ko xaaral mu xaar mu ne ko su ma dindee sama musóor gi ndax wax ma mu dindi musóor gi ne ko yaa koy gis mu ne ko gisuma ko defal ndànk dem na mu ne ko gisoo jinne gisoo rab ki nga gis mooy naamuus mooy ki ki doon dikkal yonent yàlla Moussa koo koy jibril moom nga gis yonent bi xamul woon jibril est ce que xamoon na ko kon xamu ko woon yonent bi jibril moo ko fekk muy dox nekk xale bu góor mu jël ko tëral ko jë lakas xol bi ba mu set benn yoon ñaari yoon ñetti yoon xol bi soo ko set yonent bi julliwul xol bi set woorul xol bi set dañ ko koo defal jibril moo ko raxasal xol bi ba xol bi set te moom xamul woon jibril sooy mbokk ndeem kooku la ñu gëm moom la wóolu te moom dañ koo dimbali xolam set moo tax sama mbokk ibaadu yi wax ne kenn du dimbali jaam xol bi set dama wax ne dégguñu te mu nekk yoo ñu ne jël ñu jële ko fa ñu ne moom duñu ko fa jëlee fii rek lay fuñ ko teg fan lañ ko teg sëñ Touba affaire yi la jóge woon sëñ Touba indi nañ ko tuubaa mu jógee Taalum ji Touba ak Saalum matul di biir Sénégal Cheikh Moussa ne nekkoon Touba ñëw na Saalum ñu ne mënta nekk tuubaa rek lay des kan nafata fi ñu ko teg maa ngi leen di seedal ci màggu yàlla ñun dey wax dëgg yàlla ñu ngi seedal yàlla ne Cheikh Moussa Cissé njàmbi borom daaru mooy xalifatullaahi fi lardi te li may wax ku wóolu sa sëriñ rek wala nga wóolu sa bala ma fiy jóge rek ñëwal ñëwal nii nga tegal nga tegal ma ko ñu du ñu génn alxuraan du ñu génn xadiis du ñu génn sa waxi sëriñ nga xam ne ki donn yonent bi toog ci palaasam ki donn ki ki donn ministre lu muy lu muy doon sëñ bi ah waa day day jëlee ministre day day jëlee nit ñi ci lëndëm ku donn yonent bi da jële jëlee nit ci ci lëndëm yóbbu leen ci leer waaye ba tey murit boo si gis xol baa ngi tilim tijaan boo si gis xol baa ngi tilim ñuy werante di xëccoo ci ay kilifa la ñuy doon hmm. naan kii mooy xalifa kii war doon nekk xalifa ñii kaloo fii ñii hmm. loolu du mbir loolu du mbiru yàlla xalifa xalifa lañu umpale yàlla moo koy tànn du ko tànn mukk nag fu ñu ko foogee ñu fi nekk nag seen bark baay la seen kër yi baay la ñoo fi nekk ñu ngi leen di sargaal di leen ñaanal yàlla mu yokk ñu yokk seen leer waaye Cheikh Moussa Sy mooy góor gi nga xam ne bi ko paa bi laajee dana ko mënoo lire lettre bi ndax Cheikh Tidiane xam lu mu wax tëtëxër bi maawul xëy bi in kunta zaasiri wa ilaa tayaamun bi saayidil sarair mu ne kaaleen ngeen laab ci laab gu duñ ko tuddee sax ci maaw ci tëxëra ci ndox mu fàddu mi ci ndox mu fàddu mi ñëw leen ngeen laab ci ndox mu fàddu mi in kunta ndeem doon ngeen boroomi mbóot nam nan ngeen boroomi mbot mu ne wa son ko ngeen tim tim yo xamne ne seedawu naa ci waxay son ne pay nag ngeen julli takusan lu jitu ngeen di julli fajar su boba nag ngeen nek ci ginnaaw imam bi ngeen julli parce que imam bi mom lañ del ne moy julli donte yow jang ma nek ci ginnaaw wante fekk na yaay imamam nak nanang boba nak fantakil bahri bil bir di jëlal géej gi nga tasaare ko si jéeri wallaay ndeysaan ñooñu liñ la doon tegtal mooy naka la jaam bi def ba xol bi set naka la jaam def ba xol bu set gis nga sëriñ li muy yitewoo ci taalibe mooy nu muy def rek ba xolu taalibe bi set mu jógale ko ci lëndëm yóbbu ko ci leer képp koo xam ne nag toog naa ak sëriñ nga nekk nit laa wax wala nga am ful la xam ne di nga dugg bàmmeel te ngeen nekk at wala ngeen nekk ñaari at wala ngeen nekk ñetti at jëlaw jóge woo ci leen dem dem ci leer te laajoo ko ko ne la wóor na yaa sànq sa bopp waaye lii mooy diggante sëriñ ak taalibe loolu nag ñun lañu yàlla dimbali ci góor gi nga xam ne xut bu samaan bi nga xam ne moom la yàlla indi jamono muy Cheikh Moussa Seye Ndiamé boroom daaru wax ji dëgg na rëy na waaye moom ku gore la dane man lii may wax jëlewu ma ko ku fudul kër Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul sëñ tubaa mooy sama sëriñ waaye nag baatub laa ilaaha illallah laay woote waaye nag yàlla borom jaam yi laay wooteel lii leer na sëriñ tubaa mooy sama sëriñ laa ilaaha illallah moo ma doy ci jaamu yàlla yàlla laay wooteel gis nga jaamu yàlla liñ ko def ak lay raxas xolu jaam yi lañ ko def gaa yi ñu koo réere gis nga nit ñi bala bala ngay dañ koo réere moo tax mu ne nag bu doon ñeenti tànk benn tànk bi seytaane daf koo daf koo këf seytaane daf koo këf màggat la wala xale buy jàng dox ndax lan xol yi ñoo war a set ba pare xol yi ñoo war a set ba pare nit ñi soog a julli xol yi ñoo war a set ba pare nit ñi soog a woo xol yi ñoo war a set ba nit ñi soog def dara mais xol yi xol yaa ngi tilim hmm. xol yi ñu ngi tilim te koo ci gis nag murit la wala tiijaan wala xaadir wala laayeen boo doxee mu ne diw mooy sama sëriñ yow lu mu la tane sa sëriñ bi lu mu la tane kon nañu yeewu xam ne bàmmeel ku nekk yaa fay dugal sa bopp te boo fa duggee soo wanee ginnaaw xam lu lay laaj li ngeen bañ a dégg li nit ñi di bañ a dégg mooy yàlla dañ koy xam loolu lañ lay laaj de ba duggee bàmmeel juróom-ñaari jéego dañuy defaat sa ruux ngay dégg nit ñi ñuy dem seeni tànk malaaka yi teg la ne la man rabbuka kan mooy sa borom te noonu laa julli de man rabbuka ne la kan mooy sa borom wallaahi xam yàllaa fay jariñ biir bàmmeel wallaahi àdduna gii xam yàllaa fiy jariñ wallaahi sëriñ boo àndal wala nit koo ànd ren ba déwén xamuloo la yàlla nax na la aada gi dafa yàgg ba nuru dëgg te du dëgg aada gi dafa yàgg ba nurul dëgg tudd dëgg ñuy toppee sëriñ bi dem ba xamatuñu lan la waaye nga yow yaay féete doon suuf rek di joxe rek kenn doo jox dara loolu de taxul woon sëriñ sëriñ da nga koy jox àddiya da nga koy ñakkal baax na danga koy jox àddiya ñakkal ko loolu ngay defal sëriñ bi mais mbir ngir lan ngir mu xamal la yàlla te yàlla tax ngir mu raxasal la sa bi sa bi set waaye waaye na kan ma fiy tëdd guddi ci ñi xamul yàlla wax leen ma rek te yàlla tax ñi kan mooy tëdd guddi nelaw fii ñi xamul yàlla boo xamul yàlla boo tëddee guddi doo nelaw liñ daan dal ay jamono moo ñuy dal naan ay waay diwa ngi may liggéey de ay xolal Binet Diagne ndeysaan da ngay ree sonn mooy dama daan diwoo diw bu koy wax te tabarakallaahu doy na waar te moo am koo ci xool ndigg li dafay fees délecté gëmuñu yàlla eh ñu ñi ñuy wax yàlla yàlla yi boo tàmbali woon cat ba cat fee cat ba cat kenn takku fi téere ah ki ki ah, baa kenn takku fi téere sax nag baa commencé wuñu takki téere ah gars yi moom kon nag day na waar boo tëddee guddi doo nelaw xamul tax doo nelaw xamul tax doo nelaw may ma tuuti rek may ma tuuti rek boo tëddee tuuti doo boo tëddee guddi doo nelaw xam nga loolu moo doon daal koo romb rek yaa ngi ñaaw ci moom njort nit ñi xoolal dañoo ñaaw njort da ngay romb mu toog nga ne ci man lay jëw wala ci man lay waxal wala man lay xool te te feebar la boo xam ne tabaarakallaahu moom la nit ñi di jéem a sifaay ba tax nit ñi ku nekk dawuti fu ne am foo yaakaar waaye boo fa defee fukki at feebar bi dañul nga dem si médecin fukki at sa waay wéroo nga ne nga ne nga ne nga ne ah day na war nañ xelu ku si tëdd guddi xoolal léegi xam nga gars yi ba ba ba lu ñu wut ay yenn genre chien yi xam nga yenn xaj yooyu xam ne dañ leen nag dressé xam ne li lekk nit seen bundu lañ koy teg wut picc bul xaw ma nu mu tuddee wut ay verre yu ñuul vitrine yu ñuul yoo xam ne bu ñu nekkee seen oto yi doo leen gis parce que ñoom yaakaar nañ la boo leen xoolee sax xool bu metti yàlla boo am bët ne ko jàkk ñu ne dëmm la boo na leen jàkk rek xool bët boo am yàlla bët mais am na benn maire boo xam ne fii la nekkoon am bët mais gis nga boo amee bët ci ko dëkk bi am nga problème dañ naan dëmm la de <laughs> nit ñi ñoo tilim barki Cheikhu naa Cheikh Assane Diouf ma yaakaar léegi lan mooy solution bi mais lan mooy solution bi te nit ñaa ngi am ay sëriñ nit ñaa ngi julli nit ñaa ngi woor waxuma julli baaxul de mais dafa am lu ko jiitu li ko jiitu nag moom la Cheikh Moussa wax ne tay yàlla man la ko jox ci jamono mooy lan moo tax waxam ju jë ja nit ñi dégguñu ko mu ne julli du jaamu yàlla woor du jaamu yàlla natt mburum koo du jaamu yàlla génn ci mbay mi asaka du jaamu yàlla dem màkk ñu ne yéey sëriñ dox na lu ëpp mu ne waxuma ko di waxuma ko di bàmbaa ko wax bàmba ko imaam malik ko wax imaam malik ko yonent bi ko wax alquran moo ko wax te fu nekk mën na ko faa laal waxul ne loolu baaxul mais dane xoolal tey nit ñaa ngi koy def xus waaye ku nekk na toog xool sa xool sa xol ñu nag dañoo am baddil nga baddil mooy chance dof bu tilim bu ferul baax nekk ab nasaraan moo tax lii ku yaakaar na neen la te yu mel nii moo am biir dakaar ku yaakaar na neen la nax nga sa bopp ñu kenn mën leen a nax moo tax dëgg feeñ na neen day dem dëgg feeñ na neen day dem lu dëgg gën a ñëw jant bi lu mu gën a génn rek lëndëm di gën a dem bu nee ba tisbaar nag jant la boo xam ne da nga daan tiim nii waaye kenn du ko mën a xoole ndaxe jeex na sëriñ bu jàppul say taalibe wan la yàlla dañ la baax nit ki boppam la bëgg nit fii ñu fi nekk ñëpp ku nekk sa bopp nga bëgg koo fi joxe woon lu ko jariñ da lay wax ñukk nit ñi seen bopp lañ bëgg de koo fi gis boppam la bëgg nag ku ne la sëñ bi yow gën a bëgg da lay boppam la bëgg sëñ tubaab bi gars yi ñëw di ko di ko sëñ bi suñu ndey daa gën a sëñ ma ne déedéet déedéet a juum maa gën ci yeen seeni ndey maa gën ci yéen seeni ndey maa gën ci yeen seeni i lii la ndax dafa def ci ñoom li nga xam ne moo gën ci ab jaam mooy li nga xam ne jaam su ko amee dafay am quiétude dafay am plénitude dafay dal dafay tëdd nelaw dafay féex man wallaay ndeysaan man loolu moom ma njëkk a frappé ndeysaan maa ngi koy waxtaan sànq ak soxna su tedd si sama xarit bi euh, ku baax ki Fatou ma koy wax ndeysaan ñu kii ma kay expliquer diir bi ñu touti tuuti gisse a kay maa ngi koy wax du ko tuddal ñoom taal wallaay ndeysaan hmm? ay question ay question yoo xam ne doomu aadama daf ko war di posé wu ay question nit dafa war di xalaat wa man fi ma nekk nii fan la man luma indi fi ñëpp xam nañ ko de xalaat bàmmeel gis nga nit dafa ragal yalla man dama daan julli julli julli julli julli fanaan jàkka ja ba bësat fajar yeewu dem kër ga jël jël jël alxuraan jàng benn benn benn isib ba mu jeex jàng xasida ba 10 heures def naa ko juróomi at juróom benn at juróom ñaari at billaahi wallaahi wal kitaab mais sax yu ma tëddee rek damay tiit su ma tiitee man xaaral ma yokk naafile yi mais ba tey rek maa ngi sikki sàkka bàmmeel ay waay ba ma ragaloon bàmmeel <laughs> bàmmeel abaan na ko ñemee ku fii ñemee bàmmeel tëddal mais ku ragal bàmmeel defal pas-pas ni ngeen defee pas-pas yéen samay mbokk pour am yëre am dàll am loo leen lekk am ay kër ku ko def xam yàlla waaye xëy suba teel julli juróomi minit ngoon nga julli at ba at nga woor benn weer màkka boo amee demal boo amul bàyyil nga ne nga ne doy na te 24 heures koy def ci wut xaalis xam ngeen ne loolu du mbir mi moo tax Cheikh Moussa ne du mbir mi am na leneen lu ko jiitu am na leneen. man nag ci loolu laa doon posé ay question wallaay ndeysaan maa ngi fii li may wax nii fii laa ko dund fii nii kon bii génn ci mbedd yi fii def tànku neen di wër dof bëccëg bëccëg ma ma tors tors torse torse di ñiit bëccëg torse di ko di niit bëccëg may jaar ci mbedd yi dof sama xarit yi xam ne samay promotionnaire de classe la ñu ñoo jën jàngandoo Ousmane Ndongo mi ak Amatal dañ daal ñëw si di ma wër ni eh ay suñu waa ji dof na ay suñu waa ji dof na tubaarkàlla nit ñi nag lu nit ñi foofu la nitu yàlla yi jaar yonent yàlla Muhammad mi ñuy wax suñu yonent bi mi ñuy wax ñu naan gàmm dafa xaraam waxuñu dëgg moo tax dafa wax yonent bi Muhammad ndaxam doo ñëw ma wax la ci alquran ma nettali la ci alquran histoire ñu la jiitu woon ngir mu dëgëral sa ngëm moo ko wax waaw léegi ñu waxtaanee histoire yonent bi yàlla Muhammad loolu loolu loolu loolu bi daal te yàlla ne ko kaay ma nettal la ñi la jiitu woon seen histoire ngir day dëgëral seen ngëm léegi ñun ñuy waxtaane histoire Muhammad pour mu dëgëral suñu ngëm loolu bi daal moo tax kenn mënu koo teggi alxuraan na ko wax su ko defee lii ma la wax yow lii ma la wax suñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la jaar li nga yonent yàlla Muhammad mi ngay ndamoo fii fii la jaar na xëy di def ay questionnement waaw ana yàlla di wër di seet kenn tëbul xam yàlla kenn tëbul xam yàlla waaye faw na ngeen liggéeyee xel yi xel day entraîné ni jëmm di entraîné di cukki cukki am am doole noonu la xel di entraîné xel dañ day entraîné yàlla daf la ko jox pour nga entraîné sa jëmm ji boo entraîné mu am doole sa xel mi soo ko tàggatee mu am doole sa ruu gi soo ko tàggatee mu am doole ñoom dañoo tàggat seen xel yonent bi xëy na di wër dem ci ay xuntu xoolal li si gën a doy waar